ci bis bi nga xam ne moom lañ daje fii ci Touba janatu Mbawa Baye Fall ga di màggal bisu bi nga xam ne ci la sëriñ Touba gërëme woon Cheikh Ibrahima Fall sabab si mooy loolu mooy fàttaliku ngërëm li nga xam ne moom la Serigne Touba gërëmoon Cheikh Ibra te Cheikh bi mu génnee kër yi mbokkam bàyyi waaye juróom yi lépp lu mu amoon dëgmal Serigne Touba loolu rek la wut mooy ngërëmam te xam ne ngërëmul Serigne Touba. ci la àdduna ak texe àllaaxira nekk loolu nag bi ko sëñ bi gërëmee ba tolloog bis bi loolu nekk mbégte moo xam ne nii waxtu wu dellu see njabootu bi Ibrahima yëpp ànd ak taalib yi ak soppe yi di fàttali bis boobu di ko bégee te xam ne liñ doon sàkku lépp ci lañu ko sunu borom defal loolu moo waral ñu daje fii di fàttali ko bis bi Jazbul Murid kuréel la goo xam ne dafa lëkkale sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall ak sëtu maam Saliou Fall ak lu bari ci soppee Cheikh Ibrahima ak ci taalibe yi li leen tax a jug mooy àndandoo di liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall ci bépp domaine boo xam ne nii rek war nañ cee mën a liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh ñu nekk ci taxawal ko nag ci ndigalul sunuy kilifa rawatina sunu waajur Serigne Cheikh Dembu Fall xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall. jubluwaay bi daal mooy liggéeyal Cheikh Ibra ay jumtuwaay yi nañ yoo xam ne dañuy liggéeyal Cheikh Ibra ci anam yiñ ko mën a yëpp borom xam yaa ngi ci di liggéeyal Cheikh Ibra ci seen xam-xam borom alal yi di ko liggéeyal ci seen alal borom doole yi di liggéeyal Cheikh seen doole ngir lépp rek fas yéenee ni fi Cheikh Ibra bàyyi di ndonoli ñu fas yéenee ma gën koo mën a jëme kanam gën koo taxaw waaw loolu de mooy jëfe ndigal rek mooy li nga xam ne mooy tax nit ki du juum nit moom dañuy waxtu wu juumee rek mooy dafa nekkul ci ndigal waaye liñ la digal boo ci tegee sa tànk ndax kala koy digal lam lay digal du intere boppam sëriñ bi lim ñuy digal loolu buñ ko xoolee suñu intérêt ñun ñi koy jëf moo ci nekk àdduna ak àllaaxir kon nag loolu moom mi ngi fi fa tey ñu ñëw njëkk ñi la leen taxoon a raw mooy tegoon seen bët ci ndigal duñ jiyoog sëñ bi ci dara ndax boo xoolee Serigne Touba bi muy lim murit saadix ni mu war a mel da cee lim ñeenti melokaan te ba ca njëkk mooy jëfe ndigal maanaam murit day jëfe ndigal bu ndigal rotee dootoo amati ak tànn ci dara lu dul da ngaa jëfe ndigal la ba noppi. lam ca teg mooy rafet njor ci sëriñ bi xam ne lam lay digal lu dëppook ndigalu yàlla la teg ca it mooy bañ a mooy lu bari ñi li ñuy def tey sëñ bi daa war a wax. wala sëñ bi bu waree wax bu waxee ba noppi nga am ca yeneen kàddu nan bu ko waxee woon nii loolu lépp sëriñtu Tuubaa daf ne bokkul ci melokaanu taalibe ak it ñeenteelu melokaan mooy bëgg sëriñ bi mu gënal la sa lépp ñeenti melokaan yi la sëriñ Tuubaa wax ne mooy melokaan murid saadiq ñu jàpp ne nag tey jafe-jafe yi am yëpp mooy melokaan yooyu sëriñ bi tudd ñu bari tey dañuy tuddoo mbir mi ta loola nekkul ci ñoom moo tax ñu doxi seen sago waaye melokaan yooyu sëriñ bu tudd kum nekk ci yow yaak murid yi njëkkee yéenay bokk fu ngeen teg seen tànk te yéenay bokk lu ngeen am. waaw internet bi moom moom maanaam day am anam guñ ko mën a jëfandikoo ci nu baax am geneen guñ ko jëfandikoo ndax wax lu ñaaw ak di ci def lu ñaaw moom maanaam amul benn njëriñ anam giñ ko mën a jëfandikoo doomu aadama di jariñoo la gën moo ñu jëfandikoo ci anam googee loolu mooy li nga xam ne nii mooy li nit ñi war a bàyyi seen xel waaye yaa war a wax rek tax nga wax. lu la neex wax lu yàq wax lu jaxase àdduna loola boo ko waxee ba noppi it te wax ji di des du dañ ba abadan kon kuy wax ku nekk war nga seet la ngay war a wax mooy lan xam fa nga koy war a wax fa nga ko waxee fa koy waxee fan la te am ca ndigal bala nga ko waar ji fi ñu fekk daaree Cheikh Ibrahima Fall la waa Jazbul Murid di ndaw ñi taxawal ko ci ndigalul sëñ Cheikh Jëmb Fall sëriñ Mouhamadul Muntaxa moo teg si woon xeer wii ci jamono yi Serigne Sidil Mokhtar tey jii daara ji àgg bañ tàmbali liggéey bi xañ na sax àggagul fañ ko bëggee waaye nag liggéey bi tàmbali leen tey ju mat juróom-benn fukki gone ñi ngi fi ñu leen di jàngal alxuraan jël ay jàngalekati alxuraan di leen fay ngir ñu mën a yor seen kër jël ñu leen di wattu ñu leen di toggal ñu leen di fóotal te loolu lépp it fayuñ ci dara dañ koy def ngir liggéeyal sëñ Tuubaa ak Cheikh fal keroog alxames bii jàll dañoo demoon ci sëñ Mouhamadul Muntaxa doon ko xamal ne liggéey bi àgg na wax ko fi mu toll mu am ci mbégte wax ci wax ju rëy ñu sàkku ci moom it daara ji nekk banqaas ci daara yi Sëriñ Tuubaa ji muy tabax université bi loolu mu nangul ñu ko ñu xam ne daara yi maam Cheikh Rafaat ji kon banqaas la ci daara yi Sëriñ Tuubaa ji kuñ jàngale fii ba nga mokkal ñu yar la da ngay dem fële ci daara yi Sëriñ Tuubaa àggale sam njàng fii mooy loolu fii mooy barab bi nga xam ne mooy daara yi maam Cheikh liggéey bi mooy jàngal nit ñi alxuraan ak yar leen ci waaw kay jërëjëf jërëjëf waaw loolu waaw waar wi TV ñu ngi leen di ñaan yàlla barkeel seen liggéey fi ngeen bëgg a àgg yàlla sunu borom yóbbu leen fa ba yóbbu leen fu kawe seen jort ñi ci nekk ñëpp yàlla may leen jàmm ak tawféex ci barkeel sëñ Tuubaa barkeel Cheikh Ibrahima Fall. Euh, ni ngi nuyu mbokk yëpp nag mbokki taalibe yëpp rawatina nag kër gi nu nekk di kër Cheikh Modou Fallou Fall Cheikh Modou Aminta. nuyu mbokki taalibe yi ñu bokkal toog yëpp waaw di wax ne man la Basirou njaay Baye Fall euh, bëgg wax tuuti rek ci liñ xam ci bis bii nga xam ne mooy bisu Cheikh bi nga xam ne daanaka murit boo xamante ne bii suñu borom dogal na nga am jàmm ak xéew rek bis bi ko waral ndax ci la Cheikh Ibra woon ngërëm kon bis boobu bis bu mag la bis bu rëy la ci yoon murit mooy waaye nag nu tànnal ko kenn ci waa ci njabootu Cheikh gi di sëñ Bassirou Fall alxuraan nga xam ne moo koy saytu saa su ne bu bu bu ñëwee waaye eh, ni ngi ci ziare bu baax nag njabootu Cheikh Fall gépp tàmbalee ko ci Cheikh Bassirou Fall mi nga xam ne mooy borom bis bi waaye jëriñu Cheikh Fall ji sëriñ Cheikh Jëmb Fall ñu koy ziare bu baax. ziare sunu sëriñ nag sunu yaakaar te ëllëg sëñ Fallum Cheikh Modou Aminta ñaan suñu borom guddal fanam lool te wéral ko waaye njabootu Cheikh Modou Aminta gépp rawatina jëwriñam di Cheikh Moustapha Fall Fallilu waaw di euh, gën a wax rek ne euh, euh, sëñ Fall moom day sëñ day sëñ bu wér a wér ci ku ko xam xam na sëñ Fall la moo tax te boo xoolee sëñ Fall mu mag mu nga xam ne moo mooy mooy mooy doomi sëñ Touba ni ko mbooloo ni ko àdduna bépp bëggee sëñ Fallou Fallum sëñ Mourou am tamit tamit noonu la mel mooy itam euh, lan la woon ci turandoom ba daa daa daa ne moom moo tax mboolo moo tax ni nga gis ñëpp comme ni nga ko waxee ci sa tàmbali nee nga ko ne yëpp bëgg ko ba ci yow loo looloo ko waral day sëñ Fallou bu wér a wér ci koo xam koo xamul nag xam naa xamoo waaye ku xam xam ne sëñ Fallou la ndax jërëjëf ñoom ji di sëñ Moustapha Fall Fallilou da koy wax day wax ne sëñ Fallou la bu wér a wér kon ñu ngi leen sant bu baax leen gërëm lu del siwaat rek amaale kàddu yu néew yu nu sànniwaat ci wax ji ndax dafa am wax ju am solo la yoo xam ne ni soxna si da koo laaj muy ndigal ndigal li nga xamante ne bii moo daan jógee ci kër sëñ Touba di tàbbi kër Cheikh Fall waaye ak feneen fu mu mën a jóge rek di baatum ndigal xam ne moom uh, lay lay saafaraam moo jëfe rek ah ñun de suñu yaakaar nga xam ne moom la yaakaar tey ëllëg ndigal bu mës a kër kër sëñ Tuubaa ñëw ñëw ñëw ñëw sa kër Serap Fall ka indi ndigal da da lay neexal kon ma gën a dolli ñaax sama bopp di ñaax ñëpp ci nu gën a fonk ndigal bu baax a baax ndax ndigal ka mooy lépp waaw boo déggee ndigal mën ngaa bañ a juum waaye boo déggul ndigal rek de mën ngaa dëkk juum kon nanu suñu borom dimbale baaxe nu ban mën a dégg ndigal bu baax a baax di ko jëfee ndax dégg ndigal baax na lool kat waaye jëfe gën a moo am solo kon asalaamaaleykum wa di leen siyaare yéen waa waa RIT di leen jaajëfal ci ñëw gi ngeen ñëw fii fekk na fi nun waa daayiratu booloo baax eh, di daayira Cheikh Mamadou Falilou Fall te eh, jëwriñ jiit nekk nii di sañ Makhtar Jongu wane ko kii mooy jëwriñu daayira bi mooy sëñ Makhtar Jongu ak sëñ Bassirou njaay mii jëwriñ la bokk di sunu kilifa. ñu it ci jëwriñ la bokk waaye li ñuy jëkk a jégalu mooy col gi ñu sol tam xaw a waroo ak colug murid yi daa mel ni dañoo amoon lu luñ soloon léegi mu am lu ci gàkk moo tax ñu soppi ko loolu ñoo ngi koy jégalu baax. xam naa soxna si nag fi nga ma laaj moom day xaw a kawe ci mandax diggante maam Cheikh ak ku tedd moom foofu moom daa daa daa kawe lool waaye nun daal liñ mën a wax mooy ci sunu jëwriñ yii la ñuy tàmbalee nga xam ne mooy ñi ñoo ne ci sunu kanam. muy sëriñ Falilou Fall ak jëwriñam di di Cheikh Moustapha ñun daal ñoo ñooy suñuy bunt ñoom la ñuy roy ñoom lañ topp ñoom la ñuy déglu ñoom it seen wayjur fa mu tegoon ab tànkam rek lañ fa teg muy jëfe ndigalu sëriñ bi te duñ nekk ci lenn luñ leen li ñuy tere ndigal nag moom mooy seen dund moom la ñuy nangamtiku moom la ñuy wanaasu saa su ne fu ñu mën a nekk ndigal rek moo leen fa bax teyit loola moom mel na ni ñu ëpp ci yoonu murit xam nañ ko ba tax na fu ndigal jógee rek ñoom la ci ñëpp di bàyyi xel muy bépp lépp ndigal loo xam ne bàyyi ko na kër sëñ Touba jëm kër Cheikh Rafal yaakaar naa kenn ku nekk ràññee na ci waa sëñ Modou Minta Fall du ma ne ñoo ci man de waaye kenn mënu leen ci kon nag ñun ci loolu rek lañ nekk xam naa nag diggante eh, maam Cheikh ku tedd foofu moom sunu sunu sunu dégg rek lañ ci am waaye nag kawe ci ñun ñu di ko wax waaye daal naa ne maam Cheikh Rafal daal lam nekkoon lañ déggoon ñu ne ci la nekkoon mu ak li Cheikh Modou Fallou Fall nekkoon kenn mënu leen a warale ci dara te Cheikh Modou Fallou Fall lam nekkoon ci la njabootam gi nekk muy sëriñ Fallilou ak Cheikh Moustapha ak seeni rek yépp ak seeni taalibe ndax fii bëkk démb lañ bàyyikoo ko gàmmuk Thiès te ndigal la leen fa yóbbu woon tey jii ñu ngi waat fii te ndigal moo leen fi indi ndax boo xoolee barki démb rek kër gi sëriñ bi nekk li fi Cheikh Cheikh Moustapha def boo ko doon xayma ci ci wàllu koppar buñ la ko waxoon nga nga yéemu ne déedéet te dara waralu ko lu may fonk bis bi rek te bis bi di ndigal loolu rek moo ko waral muy defaraat mekkaan bi ba mu mel ni nga xam ne bu sëriñ ñëwee mu mel ni ko gënal te buñ jógee fii ñu ngi fas yéenee tàbbi jiwaat ci mbalem Tuuba te loolu ndigal la kon daal ñun ndigal mooy sunu dund mooy sunu lekk mooy sunu naan mooy sunu lépp ci ndigal daal lañu fas yéenee nekk ndigal nag ni ko sëñ Basiiru Njaay waxee rek ndax dañoo wax ne Cheikh Mouhamadou Falilou Fall sëriñ euh, euh, sëriñ Assane Fall sëriñ Abdoul Ahad mos na koo wax ne ko ndigal day yow kër sëñ Touba day dañoo am bañ kër Serigne Fall am bañ mbañum kër sëñ Touba mooy fi ma toog ku fi toog war a digle digle woo war tere tere woo ko def lekk nga mbañum sëñ Touba kër sëñ Touba mbañum kër Serigne Fall nag mooy ndigal bàyyi koo kër sëriñ Touba ñëw kër Serigne Fall ba delluwaat kër sëñ Touba te ndigal la jëfewuñ ko kon loola mooy mbañum kër Serigne Fall ku fi moom it ku fi toogal Cheikh Fall loolu am lekk nañ bañum kër Cheikh Fall loolu nag yaakaar na amagut te du am ndax waa kër Cheikh Modou Fall li Fall moom ndigal lu mën a jógee kër Sëñ Tuubaa moom dana leen jaral lu ne ba ndigal la mel na ko Sëñ Tuubaa bëgge woon manees na ci lim yu baree baree baree baree bëri bëri ak nga xam ne itam nag njabootu Cheikh Fall lañ tey ci ànd ak ñoom ñëpp nag muy seeni wayjur di seeni rak muy ngasum te woo mbërk dem nii gis ngeen ko ak yeneen ak yeneen mënu ma koo lim waaw noonu daal ci loolu nag lañ fa yéene nekk ànd ko ak ñoom fas yéene daal fépp foo xam ne ñoom ñanga nga fa te woonu fa dañ leen fa wujji waaw bu ñuy dund dañ leen fa wujji buñ faatoo dañ leen du teg ci ci ci woto ba yóbbu nu fa ñoom ñu dog noo denc waaw loolu daal mooy li ma ci mënoon a wax maa ngi jégalu ñëpp ngeen baal na ak wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu